Pape Mor Ndiaye di secretaire général sous section SUTSAS hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès euh, ñu lay nuyu sëñ bi Ndiaye. Ah, maa ngi lay voilà donc ñuy waxtaan euh, waxtaan bi ñu koy amal tey euh, gannaaw nag démb bañu ñu ba ñu daal di jàllalee seen ñaari collègue yooyu nekk ca hôpital bu Tivaouane fi nga xam ne nag ay tout tànk ñoo fa faatu gannaaw lakk-lakk gu metti ndax yéen xaaroon ngeen li ni mel. waaw euh, xaaroon nañ ko xaaruñu ko. Mm. parce que ñun boobu ba léegi enquête bi bu mu commencé. Mm-hmm. ñu ngi toog di suivre mais bi ñu demee ba ci biir ñu gis ne ba ñu woowee suñu ñaari camarades yooyu gisuñu ñeneen ñu leen ci fekk si mujj gi mu niru leneen te ñoom daal dañoo bëgg a yemale affaire bi ci ñoom boobu suñu xel commencé na tey. Mm-hmm. bi suñu xel commencé na tey tamit bi nga xamante ne. ñoom euh, dem nañu ñetti yoon tribunal ñu ne leen delluwaat leen maa retour de parquet ñetti yoon. kon yéen retour de parquet yi jàpp ngeen ne dañoo bëggoon a rey temps bi rek. retour de parquet waaw retour de parquet benn yoon ñaari yoon ñetti yoon moom après ñun dañuy xam ne am na lu ñu nar am na lu ñu nar. mais tey ñun mhm. euh, mbir mu amee bon am nañu gàcce mbir yi am nañu tamit njaxare gàcce lu tax. Mhm. parce ñun dëkk bi Sénégal mu toll nii ñu naan démocratie ñu naan respect des droits de l'homme yi demee noonu ak yelleef doomu aadama bi ñu gis ne jéye bu rëy moo am yéen presse bi ngeen wax ci li ngeen ciy wax autorités yi wax ci li ñu ciy wax ñu commencé seen i enquête ba egg ci tribunal ñu yaakaaroon ne du ñoom rek ñoom lañu ñuy war a teg loxo ak mel ni amul ñeneen ñoo xam ne seen loxo mi ngi ci biir parce que procureur moom mu njëkkee wax daf ne ku ci sa loxo nekk ci biir ñun jàpp nañ ne sax suñu loxo nekku ci dañoo nekkoon foofu pour faj ana nekk foofu pour faj ak ñu ne jëye am na ba am ñu si ñàkk seen bakkan ñu ne yéen ñu ne am ngeen ci wàll bu rëy kon loolu mënuñu koo jàpp tey mënuñu ko jàpp ëllëg ba moo tax ñun am nañu daje ci fii mbir yi mujj wala fii mbir yi jëm mais tamit am na ñuy njàqare njàqare gi moom mooy mhm. ay fajkat kexe la ñu bëgg ne yéen kat a def yéen yéen a tax ba ñu nàkk seen bakkan jàpp ne mënoon nañ cee gën a euh, ñoom it jàpp ci ñeneen ci mbir mi waaw waaw ñu def ñu def seen liggéey nu mu nu mu nu mu gën a mucc ayib nu mu gën a mucc ayib mais lii ah ñun dañuy continuer di suñu camarades yi ñun li ñu jàpp ne dañ leen war a génne foofu dañuy manifester li nga xam ne mooy suñu naqar ñun wan ne aussi ñun mënuñu leen seetaan foofu moo tax talaata war nañuy am toogaayu ñaxtu. Mhm. ba ba tàkkusaan ga ñu daal di dem euh, réunion bureau bu ñu demee réunion bureau bu ñu waxtaanee ñu génne beneen plan kon loolu mooy mën nañoo jot ne yéen di ngeen gën a dëgëral euh, xeex gi ngeen nekk jamono ci jii. ngeen gën a dëgëral li tax ñuy dëgëral mooy ñun suñu camarades yi newuñu ñu fa. Hmm. mais boo leen ko seetloo ñaari fan ñett ñu nekk ñu ne fajkat yi def na lii fajkat yi deful la te dëkk ay ay fajkat katam la am pour jàngoro yi ñuy faj pour que tamit li nga xam ne mooy ndetteel mu wàññeeku. mais mm-hmm. mënuñu ñun ñuy faj mayetu ñu jàmm koo xool sax mu ne yaa ma def lii yaa ma def lii te ñun li ñuy wax euh, li ñuy war mu mooy ñi faj li ci def malade bi dund na malade bi dundul loolu du suñu war wargar mooy obligation de moyen te li ñuy faj dañ koo jàng am ci ay lijaasa kon foofu ñun dañuy bëgg ñu gën ñoo aar wala bu fekkee ne ñoom léegi askan wi ñoom ñooy faj seen bopp mais ñun mën nañu génn ñoom ñu bàyyi leen suñu suñu suñuy bërëbu fajukaay ñi ñëw faj seen bopp loolu aussi nekk na li nga xam ne dañuy wéy di xeex ba ñu may ñu jàmm fi ñuy fajee li ñuy faj tamit ñu ñoo ko jàng ñu may ñu ñu dalal suñu ñu def ak suñu xel dëgg la seen der jamono ji moom euh, setul parce que nag fu nekk ñu ngi leen fay euh, ŋàññi mais bon est-ce que tamit jotul ngeen waxtaan seen biir ndax kat euh, boo demee ci hôpitaux yi prise en charge bi bëri na tamit luñ koy dénoncer. waaw prise en charge bi moom ci service public nii rek la mën a def mënuñu ne yow boo xëyee da ngay am ñu ne nom malade bu nekk d'abord liggéeykat bu nekk. malade yi nga xam ne ñoom nga war a euh, nekk ci say loxo dafa am ci yoon. Hmm. ñun fii li ñuy def jéggi na dayoo heure yi ñuy def ci liggéeykaay yi jéggi na dayo kon nii rek ma mën a dem yow heure boo ñëwee hôpital da nga fay fekk ay nit mais da boo fekkee ay nit da nga war a xaar. Hmm. lan mooy urgence lan moo dul urgence ñun ñoo ko jàng tamit. Hmm. mais comportement bi nga xam ne askan wi moom la ñu am ci yeneen fànn loolu bu ñu ko dugalee ci faykat bi rek. musiba day am te loolu ñun day ko xeex. mais tey jii monsieur Ndiaye nan la mën a jàngate euh, justement liy xew depuis quelque temps ci ci ci ci hôpitaux yi parce que nag du rek euh, Thiès gis nañ la xew euh, un peu plus tôt ca ca ca ca ca Louga gis nañ tam la xew ca Diourbel Linguère donc mu doon ay mbir yi nga xam ne day tegloo di bëri tey di niru. day bëri parce que lu ci ëpp ci euh, hôpitaux yi bërëb fajukaay yàgg na yenn yi depuis depuis tubaab yi lañ ko tabax dañuy ñëw rek di defaraat ak defaraat méngoowul ak jamono mhm. beneen bi li nga xam ne mooy ay jumtukaay yi nga xam ne dañ koy jënd ñu nekk ci euh, bërëb fajukaay bi mais dañ ci gën a war a tàggat ñi nga xam ne ñooy maintenance yi ba nga xam ne euh, dina dina gën a mën a liñ leen di ci liñ leen di liñ koy jariñoo mhm. mu nekk beneen bi tamit état bi moom moo war góor góorlu ci yoon woowu ba nga xam ne même jéyee jéyee jéyee dañ koy prévoir même mm-hmm. jéyee bu amee mm-hmm. parce que même même même dëkk yu développé yi jéyee day am mais jéyee bu amee mu am ay kaay yoo xam ne day yemale jéyee bi ba kenn du ci ñàkk sa bakkan mm-hmm. loolu moom mooy li nga xam ne moom la état bi tànk yooyu mu war a tabax mu war a nekk ci loolu yaakaar nañ ne hôpital yu bees yi ñoom yi ñu tabax yi nii même bu jëyee amoon dina am ay loo xam ne dina aar aar ñi nga xam ne mooy maladie mais aar personnel bi c'est ça parce que tey maladie la mais mais personnel bi si seen bopp sax nekkuñu sécurité te suñu sécurité ñoom ñoo ko ah ñu ngi noonu dëgg la am na yi nga xam ne mën nañ cee wax ay infrastructure euh, waaye tey jii bu ñu demee bay wax ay mise en danger de la vie d'autrui ak euh, yeneen yu mel ni délaissement ak yooyu euh, voilà donc ndax yooyu mën nañ koo méngale justement ak infrastructure yooyu moom ça engage justement personnel de santé bi xam nga loolu benn mbaxana buñ ñu jël rek solalu leen ko rek boobu ba léegi ñoom ñu ngi naan mbaxana mi duñ ko sol parce que ñun nekkoon nañ ca bërëb seen i seeni seeni seen kilifa ci hôpital ba nee na ñoom biñ fa jaaree gis nañ leen ñi nga woon ci bërëb hmm. léegi enquêteurs yi ñoom ñoo ne nekkul leen fa woon. bi ñuy bi ñu demee defaraat euh, lakk-lakk gi reconstitué ko loolu ñoom léegi am na seen wax am na waxu ñi nga xam ne moom lañ teg loxo ak ak yi. ndax loolu fekk na ci waa Louga ak waa Diourbel. waa Louga Louga beneen kaara parce que Louga ci biir liggéey bi ñuy liggéey ci la ñu ci la ñu daal di tege tuuma. Mm, d'accord mais bii bi ci biir liggéey bi. Mm-hmm. bii ci ci li nga xam ne moom mooy environnement soin bi la. Mm-hmm. amee mm-hmm. dafa am ñaa loolu bokkul. Louga bi ci biir liggéey bi maintenant tey mi ngi noonu buñ ne xale yi waroon nañ leen pigir ban heure pigir luñ leen ba lii am na lii am na. xale yi duñ leen di nàmpal nàmpaluñ leen ba ñu xiif ba ñu loru loolu ci biir liggéey bi la mais li am li <clears throat> ci biir liggéey bi mais li nga xam ne moom moo moom moo moo aar nit ki ci ci liggéey bi loolu nag est-ce que ñun la est-ce du ñun loolu mooy wax ji d'accord tey ngeen amal benn plan d'action comme ni nga ko waxee am na lu ngeen di waajal mardi laata ngeen koy évaluer euh, ami mi-parcours justement ndax euh, personnel ba yépp àndoon nañu ci euh, <coughs> boycott bi ak plan d'action gi ngeen yëkkati woon mercredi. personnel bi yépp ànd na ci parce que waxuma la suite parce que nga xam ne moo fi ëpp doole te fépp ñu nga fa poste de santé ba centre de santé ba ci hôpitaux yi mais yeneen syndicats sax commencé nañ ñëw di ñuy jàppale. parce que xeex bi <clears throat> xeexu ñëpp la. Mm-hmm. parce que tey ci système de santé bi yëpp la ñu def. ngeen yéen waa SUTSAS euh, jamono ji yéen a ngay ñaxtu intersyndical euh, liggéeykatu Kolda ñoom it euh, bu hôpital régional ba ñoo ngay yëglu fii ci Dantec ñoo ngi xam ne ne benn pàcc ci hôpital ba danañ ko jaay mu doon li nga xam ne tey jii hôpital maanaam secteur de la santé jamono ji dafa nekk si ay jafe-jafe yu métti ngeen am ci tamit ministre de la santé bu bees lan moo koy xaar jamono ji ah ministre moom li koy xaar rëy hmm. koy xaar rëy mais yaakaar nañ ne moom bu du bu fekkee ne moom moom moom mënul soppi lii ah gisuñu lu tax euh, du keneen mun moom moom fu mu jaar. Hmm. muy médecin. Hmm. fu mu jaar yàgg fa. fu mu jaar nekkoon syndicaliste. yaakaar nañ ne fu mu toll nii moom li nga xam ne moom mooy ay jafe-jafe moom yelloo na ak maqaamam pour war ko mën a régler waaw. donc jàpp nga ne euh, le fait que mu doon déjà euh, homme du milieu euh, war na koo mën a may euh, mu jëfee euh, li nga xam ne moom la ñuy xaar ci secteur bi. war na koo mën a may kay waaye pour loolu aussi il faut moom mu jóg wane ne tey jii mu tëgg ci taabal ji man maay kilifa gi baat bi benn la maa ko yor tamit moo xam état bi ne yéen état yéen joxe seen xaalis waaye lii laa bëgg damaa bëgg ngeen fekk ngeen fekk ma jàppale ma ci. loo bëgg a wax foofu ñi nga xam oh, ñi nga xam ne ñoo ko wër aussi ñi xam ne kii nekkatul koo xam ne kii euh, comme ñoom la mais seen kilifa la ñu dëggal ko. loo bëgg a wax foofu ndax da nga sentir ne politique bi dafa am wax loolu rek. Hmm. li moom man dama ne ci anam yooyu la coppati mën a am. Hmm. coppeeku ci hmm. anam yooyu la mën a am. mais bu ko bëggee woon beneen tànk wala état bi tamit bëgg ko woon ne jaaral fii te foofu foo ko état bi bëgg a jaarale mu nangu jaar fa comme tamit du réussir. ndax loolu ngeen fi seetlu woon. ah. ma ne ndax loolu ngeen fi seetlu woon. non ñun ñun seetlu nañu loolu mais li ñuy wax ni tamit pour jariñ ko la parce que ñun bu ñu fañoon ministre bu fi ñëw da ngay réussir. dëgg la comme ça problème yi wàññeeku. ndax da ndax da ngeen seetlu woon ne jëfeewuñu euh, justement lu secteur bi bëgg mais bon politique bee ci nekkoon. mais bien sûr. Hmm. bien sûr bu ñu doon déglu ñi nga xam ne ñooy acteurs yi waxuma sax syndicaliste hmm. simplement les travailleurs ak yenn autorités yi. nga hmm. xam ne moom ñoom la ñuy dénk bërëbu fajukaay yi. bu ñu leen doon déglu di déglu syndicaliste mais comme lii problème yi du am du am parce que bis bu nekk ñu ne lii baaxul lii baaxul lii nañ ko def lii nañ ko def mais du ñu déglu du ñu ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Pape Mor Ndiaye ngay secretaire général sous section SUTSAS hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ak union régionale ak union régionale intersyndicale bi di la jaajëfal bu ah. baax a baax. voilà